ne eh, dañ la war a interdire l' espace médiatique. Thierno Bocoum la ñu war a interdire espace médiatique parce que politiciens yoo xam ne gañewuñu fenn tojuñu fenn amuñu benn mandat yor seen làmmiñ rek di wax ñoom la ñu war a interdire espace médiatique ñooñu la war a interdire l' espace médiatique amuñu benn mandat gañewuñu fenn tojuñu fenn yor seen làmmiñ rek di wax lu ne jàpp ni politique yëpp attaqué ay nit la ak wax. ñooñu la war a interdire l'espace. xam nga sëñ Mansour et puis man xamul tax ba depuis combien de temps la ñu waroon wax man ak yow may mun a. ñu waxante dëgg de mois nga may woo pour ma ñëw fii wax. ñeenti weer. man xëccewuma espace médiatique au fait il faut que les gens comprennent man je parle malgré moi xam naa laa ko mën a expliquer maanaam dama cee mënul dara mais sinon du ma wax. man su ma waxee tey bala may waxaat kañ la te fu ma waxee day am ñoo xam ne par exemple keroog TFM yàlla xam na ni bëggu moon wax ñi ma invité xam nañ li may wax mais ku mel ne Pape nga xam ne sama xarit la sama rakk la sama lépp la xam nga liñ naan koo euh, koo xamul ni koy def. nim la dafa tax comme yow. mais du may wax man lan lay wax man il faut dañuy xam benn affaire espace média espace public dafa am ñoo xam ne moo leen di dundal loolu mooy seen liggéey. moo tax chaque jour ñu ngi woote ci télé yeeg site internet man sama booy yor seen internet yëpp moom ay meex ni dañ ma mere parce que bi ma defee livre bi ba léegi tous les sites internet booy yëpp ay Yankooba yëpp samay booy la ay Pape Ngagne ñëpp dañu am seen ay site di ma invité interview depuis tous les sites du Sénégal am na booy boo xam Mohamed Diallo bi nekk Sénégal dama dama ko ruus sax seet bu ma gisatee appelam pour ma ñëw wax ci ci comprendre. a expliquer pour nit ñi xam man ban rapport laa am. ak es non parce que loolu c'est important parce que nit ñi dañu yaakaar ne man espace public bi wala espace médiatique bi daf ma intéressé alors que intéressé wu ma man mosuma woo kenn ci Sénégal. mais xam nga phénomène non non non c'est important mm-hmm. may mun a xam nga leeral dafa baax parce que ñi la naan génneel espace médiatique bi dama ne leen man. espace médiatique bi moo may wër man wëruma espace médiatique bi mosuma woo kenn na ko invité ma.